dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. dalee na jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp muy AGT News gis naa président Ousmane Sonko ca prison bu Cap Manuel mu sol yëre yu weex tàll teg mbaxane ca bopp ba moom nag kaf yi nga xam ne da koy faxal di def ba léegi mu ngi ak moom gëj naa gis Ousmane Sonko ci wér gu yaram gu ni men daanaka ci ay cëram macha allah waaye itam xel mi fa mu woon mu nga fa ba léegi Ousmane Sonko nee na kontaan na ci patriote yëpp ndax nag ak moom ànd nañu daal di galgal plan bi nga xam ne Macky Sall da ko laloon ba noppi bëggoon a fay ràpp parti bi di Pastef waaye itam daal di koy faagaagal ba kenn du wax ci moom rawatina patriote panafricain bu Sénégal bi nga xam ni moom la ñuy wootee. Ousmane Sonko def na ay grève de la faim yu bari bari daanaka la mu ci doon séntu am na ko dakkal na nag si mu nekk nii grève de faim bi nga xam ne moom la doon amal boobook léegi Ousmane Sonko moom kott moom dong mooy sunu candidat Macky Sall xeetu po goo xam ne warul ci moom lay def jamono ji fii ci réewum Sénégal muy po moo xam ne dafa laal démocratie bi laal liberté yi rawatina jàmm ak dëkkandoo guri tax gi nga xam ne moom nañu amoon fii ci réewum Sénégal Sonko nag jël na dogal bu am solo mooy wëy di nekk wéttalu patriot yi waaye nag nekk tacticien bu mag ci kanamu Macky Sonko day faral di tàggatu ci kaso bi nga xam ne tey fanañ ko tëj Guy Marius Sagna na gis na sax vélo bi nga xam ne moom lay faral di tàggatoo day jàng itam alxuraan lu bari moo tax mu ngi xool bu baax a baax pàcc yi nga xam ne wala boog jéego yi nga xam ne war na koo teg ci xeex bi ngir rek mën a dugg ci palais présidentiel ci weeru février atum 2024 daal di dégg wiw juróomeelu président de la république bu Sénégal Ousmane Sonko am na métit gu rëy ci coono yi nga ne sénégalais yi ñu ngi koy dund. muy ci wàllum politique wàllum démocratie ak yeneen poñ yoo xam ne nguur ak Macky Sall moo leen ko teg mu ngi sàkku nag ci askan wi ñu daal di taxaw dëgër boole seeni doole ngir xeex bi ci weeru février atum 2024 bu ko defee ñu daal di tëj ràpp nguur ak Macky Sall gi nga xam ne xoqatal ak oppression dong la daal di dëkkee ubbi nag page bu yees boo xam ne yaakaar lay indi fi ci réewum Sénégal Ousmane Sonko mu ngi jaajëfal patriote yëpp ci confiance bi nga xam ne am nañu ko moo tax tàmbaliwaat na audience yi di déglu ay xibaar waaye itam amal ay yëngu-yëngu dina si pexe. mu ne fi mu nekk nii ci lañu war a taxaw mooy million ngi parrains yi nga xam ne dañ ko war a jox Bassirou Diomaye jaxaar fay Ousmane Sonko jaajëfal bépp patriote Guy Marius Sagna doole ci ni ci tolluwaay googee sax la Habib si daal di dem seeti ji Ousmane Sonko foofee ca Cap Manuel mu ne ni mu ko gisee dal na xelam ndax nag tàmbaliwaat na sax di amal ay yëngu-yëngu ci wàllum sport waaye itam mu ngi lekk bu baax a baax organiser na itam visite yi nga xam ne moom lay amal jamono ji di dalal ay collaborateur am waaye itam di xalaat ak di teg ay pexe ngir ñu mën a dem ca palais de la république sàkku na ci képp koo xam ne rek da nga koy jàppal tànk nga daal di jël objectif bi yëpp def ko ci atum mil 2024 ndax lépp mu ngi soppeekoo ci langu politique yi am na yaxin ne réewum Sénégal bi nga xam ne ci atum 1960 ak léegi dara soppeekoo fi ci atum vingt quatre bile la mbir yi naxa tàmbalee soppeekoo sàkku na itam ci askan bi ñu daal di bàyyi provocation yi nga xam ne dafay faral di tukkee ci ñi nekk ci nguur ak Sénégal ngir di leen tardeel jàpp na ni xeex bi nga xam ne sumb na ko fii ci réewum Sénégal bu dee ci téeméer la juróom-ñeent fukk ak juróom ya matale na ko waaye nag taxul benn yoon mu teg ci suuf lu ci mel ni grève de la faim ndax jàpp na ni bu ko aajoo rek dina ko defaat. AGT News. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne préférée AGT News. Je viens de voir le président Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel, tout de blanc vêtu avec un chapeau euh, sur la tête. Il n'a rien perdu de ses taquineries. J'ai rarement vu Sonko en si bonne santé, en pleine possession de tous ses moyens avec un mental si conquérant et un tel optimisme. Ousmane Sonko dit qu'il est content de vous toutes et tous les patriotes car avec lui, Vous avez su déjouer le plan de Macky Sall qui voulait rendre invisibles et inaudibles les patriotes panafricains du Sénégal. Il a fait des grèves de la faim avec des objectifs clairs dont tous ont été atteints sauf un. Il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant. Son corps reste notre seul et unique candidat. Macky joue un jeu très dangereux pour le Sénégal, la démocratie, les libertés, la paix la cohésion, Sonko a décidé d'être avec les patriotes, très tactique avec Macky Sall. Sonko fait du sport en prison, j'ai même vu son vélo. Il lit le Coran. Il a les idées très claires sur les différentes étapes à venir de notre lutte qui va nous conduire au palais présidentiel en février 2024 avec lui comme cinquième président de la République du Sénégal. Ousmane Sonko est très affecté par la situation du peuple sénégalais, fatigué, éprouvé par les politiques antinationales, antidémocratiques, antipopulaire du régime de Macky Sall, mais il demande au peuple de rester debout, fort, mobilisé et déterminé, car en février 2024, la page de l'oppression actuelle sera tournée. Il vous remercie, patriote, de votre confiance. Il a repris ses audiences et s'informe surtout et s'occupe malgré la distance de tout. il a une foi en nos patriotes pour rester focus. Focus aujourd'hui sur les millions de parrains pour Bassirou Diomaye à Faye. Ousmane Sonko vous salue toutes et tous. Guy Marius Sagna. C'est dans ce sillage qu'Abipsi aussi révèle « Je viens de rendre visite au président Ousmane Sonko au Cap Manuel. Je l'ai trouvé en excellente forme. Il a repris le sport et se nourrit bien. Il organise ses visites, reçoit ses amis et ses collaborateurs. Il réfléchit et écrit beaucoup. Il demande à ses soutiens de se consacrer sur l'objectif 2024 étant entendu qu'il est toujours et encore dans le jeu politique. Il reste convaincu plus que jamais que les changements attendus depuis 1960 seront réalisés en 2024. En conséquence, il demande aux populations qui le soutiennent d'éviter de répondre aux provocations et de se concentrer sur l'essentiel. Il dit avoir atteint 95% des objectifs à propos de ses successives grèves de la faim mais en tout état de cause, il les reprendrait au gré des contextes. AGT News.